Assalamualaikum wa rahmatullah maa ngi nuy ñep di ziar ñep di jital ci nuyo bi samay wayjur di ñaanal sama papa bi nga xamantene ni ya fi jógee yalla yërëm ko yok leeram di ñaanal aussi tamé sama yaay ji fi dess yalla bàyyi ko fi gën ñoo gunge ba ci kanam mom la ñu kàttanal ba nga xamantene li yëpp buñ ko mënee mom moo man ma ngi tuddu Fatou Sané eh, comme ni ma koy faral di waxé rek eh, duma responsable politique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 nekk na année boo xamante ne ni wax dëgg yàlla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 di jongante li la ñor rek moy sa askan ndax yaakaar ne budul won sa askan do jug di jongante kon jongante bobu nak nañ ko def ci dal def ko ci yar lepp lo xamantene ni rek suñu borom dogal nako ci ñu nangu ko eh, duñu duñu wax nak te ñu li nga xamantene ni moy suñu coalition muy Benno Bokk di ñaanal nak mu am ndam ci election yi ndam lu sedd guy ñu jël ko tek ko ci loxo président de la république Macky Sall comme niñ ko daan defee comme niñ ko daan wajalé chaque année Euh, ku nekk xam na ne bu ñu nee la Lionne de Thiès c'est parce que dafa am loo xamante ne nii dañ ko liggéeyal son excellence monsieur le président de la république Macky Sall loolu nga xamante ne nii yàgg nañ ko koo liggéeyal fas yéene wuñu cee des ginnaaw dañoo fas yéene ànd ak moom ci li nga xamante ne nii mooy élection locale yi naka la ko président de la république bëggee mooy ñun ñi nga xamante ne nii ñooy ay ndawam ñun ñi nga xamante ne nii ñooy njabootam ñu ànd ak dal ànd ak yar dinañ and ak dal dinañ and ak yar def ko nañ ko daan defé dem jël ndam li teg ko ci loxo président de la république Macky Sall ñi ngi ñaan militant yépp di ñaan ñi nga xamante aussi tamit ñoy la majorité présidentielle ñu mouyé ensemble le maillot pour donner une large victoire au soir du 23 janvier au président de la République Macky Sall. terminé aussi tamit te gërëmuñu te santuñu ki nga xamante ni elle est la marraine la marraine d'honneur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

pour Fatsane, donc qui est euh, responsable politique à euh, Donc aujourd'hui, nous sommes là pour la célébration de la 8e édition de Noël pour tous. Donc nous avons pensé aux tout petits à qui nous avons préparé de jolis cadeaux, de beaux cadeaux avec de la collation pour vraiment leur faire euh, euh, accéder à, la fête aujourd'hui qui permet à toutes tous ces enfants-là de participer, d'y participer et de euh, recueillir leurs cadeaux, de faire une belle fête comme tous les autres le font. Donc nous remercions